jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax euh, bàkk ba jib na géné ba dox na ñoo ngi fii ci jàmmaarloo tey nag ma dalal ñaar ñoo xamante ni ay ndaanaan lañ ci làmb ñaar ñoo xamante ni làmb da leen bàyyi xel sama góos maa ngi fi am Mamor bu jugee Fass Mbaaw jóg bu jógee waa buñ jóg ñëpp jóg sama goos maa ngi fi am ki nga xam xamante mooy Cheikh Super Jamono su jugee géejawaay jóg golfu jóg ah jàpp ba géejawaay ca kaw a kaw a kaw kaw xanaa ma bàyyi la ñu nuyoo ñu waxtaan wi ndax gars yi fi mu doon dañoo tàng mayuñu ma sax temps ma nuyu naa la. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wala xawla wala quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim. jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di gërëm ñi ma àndal landing sama chauffeur bi xam nga di ñaanal sama papa yi xam nga yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. amiin xam nga làmb ñàkk na quoi ñun ay nitu làmb lañ bu demee ba taxaw di takk ngemb mën a bëre mën a song loolu moom moo ko def su ñun mu monument la su ñun dañ koy tiitaroo fu ñu dem te bu ñu ànd ak moom tamit daf ñuy sigil xam ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko ajana ak képp ku mu fa fekk di ñaanal sama papa bu ma jur yàlla yërëm ko xaare ko ajana moom it xam ak bépp papa bu fekk di sama yaay xam nga yàlla na ko yàlla may xam nga lim lépp lu muy séntu si man rek yàlla defal ñu ko ndax am naa yéene bu rëy si moom ndax moo waral may ñëw ba fii nii xama di jaayante pour xam nga teral ko man objectif boobu kese laa am si àdduna toj suñu kër toj tabax ko te si làmb laa ko yaakaaree di nuy sama papa Modou Fall Ndiaye borom Brescia di nuyu naar di nuyu Moussey bu baax a baax a baax di nuyu Pape Gueye waaw monument Fass Mbao Fass Mbao dafa fees dell ak ndox amuñu fenn fu ñu jaar Pape Gueye moo jënd ay six pompes xam nga di nga ci ndox bi moom kase monsieur le maire mënoon nañoo def loolu defu ko xam nga ñu koy nuyu bu baax au passage di nuyu Moussey di nuyu Maodo ba France di nuy grand Vémence xam nga Zal Ndir di nuyu waa Fass Mbao yëpp. di jaale landing papaam tamit xam nga dafa génn àdduna barki démb ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana papay landing papay Cheikh Omar di jaale joolaa yëpp xam mel ni ku yor liste Cheikh nuyu ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi ñaari waajur maa leen baax a baax di ñaanal sama pap Mor Fadam mu nekk gënal ko fi mu jugee. ñaanal sama pap Sakho joor fi mu nekk gënal ko fi mu jugee ak soxnaam. ñaanal tamit sama benn booy sama rak Lamine di ko ñaanal fa mu nekk aussi danañ ko fi mu jugee kon ni mu ko waxee di ñaanal Père Mbaye Gueye waaw ndax làmb moo ñàkk daal ñu koy ñaanal fa mu nekk danañ ko fi mu jugee waaw ak ñëpp ñu fa fekk nuyu sama mag bi ma àndal nii góoti xam ne bu ma jugee mu jug waaw di ma jàppale si tous les côtés ak laay xam waaw di nuyu sama yaay aussi bu baax a baax a baax di nuyu sama papa prési am na moo naan ma bàyyil ma bàyyi moo naan ma defal ma def nuyu tamit sama mag sama xarit sama goro na waaw mi nga xam ne moo yor sama rak aussi Ousseynou aw ma fayam maa ngi koy nuyu bu baax di leen nuyu nuyu ñëpp ñu nekk si salle bi ah waaw yi ànd ak maam ñëpp di nuyu sama adversaire aussi. Mhm. di nuyu fi nga fi nga fi nga daane la fa laa jógee principalité maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax yombaloon na ma liggéey bi ñoom Mor Parcelles Jamaïcain ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax mais maam Mor ma na moon naa la de. maa ngi nii gaan barke sëñ Bamba. di nuyu waa Brescia yëpp xam nga mafia bi ñoo ma solal nii. moo sëy gaan moo. léegi moom léegi moom kaana nga moom. non man dund ma dund Sénégal dund ma dund mbër. man cam américain laay dund kaana ba yuus ba. wóor na sëriñ Bamba kii nii faxas joxas dem la bu leen. xalaat dara. geres gee bari déet bu ñëwagum ci kii bu ko yàqam di di ci ñëw. non jërëjëf làmb ji moo war a ibbi Baye Fall président de la Macky xaw Macky Sall yow fii corona am fii barki Serigne Touba ibil gaay ñu bëre ñu dañoo war a teral suñu yaay yi barki Serigne Bam fi dërëm xew fi boo teg bi ngay teg ne ibi làmb ji ñu bëre wóor na sëriñ Bamba kii mooy loolu dama koy duma daan ko. kii bu leen xalaat man balaa ngaa ñëw ci kii damay ñëw ci yow ba noppi parce que da nga fee goo kii woo sax jëlaat avance nu mu demee noonu. non ñun ay mbër lañ yaroo si keppaaru papa Mbaye Guèye Tigre de Fass mu jàngal ñu bëre bi ñuy nekk xale man sama papa moom mu jàpp si loxo yóbbu ma ba si Mbaye Guèye boobu xale laa. billaahi wallaahi père Mbaye Guèye fépp fu mu yóbbu mbër si lutte simple man lay njëkk a woo bu ñuy contact man lay njëkk woo teg ma si digg bi kon kooku sas na ma ak papa Ndongo moom ma njëkk a woo ne ma bàyyi li ngay def lépp affaire jeunesse yi yëpp nga bàyyi ko da ngaa war a nekk champion. prési paate barke Seydina Muhammad dafa dawal Mercedes am ba gis ma yàgg na lool mais yàggul matul deux ans ne ma mbër mu ne ma naa mu ne ma dama nga entraînement da ngaa war a nekk champion géejawaay per Diaw bu Balla Gaye dafa ñëw ba sama koñ gis ma. maa ngi koy nuyu bu baax barke Seydina Muhammad tee sama loxo tee na ma 30 minutes ne ma dama nga liggéey da war a nekk mbër kon maanaam man dama doon caaxaan di def yu ma neex quoi mais yooyu yëpp dama ko jël teg na le mbër force Fass Mbaw dafa war am champion. barki si yàlla Fass Mbao raf la mbër ma ngemb Pape Gueye ñëw utal ma licence li war si man yëpp mu def ko oto la ma jox 4-4 sëfër baa ngi nii Pape Gueye amuñu sa fay yaa ma dugalaat si làmb man bàyyi woon naa affaire de bëre amuñu sa fay barki Serigne Touba avancé bàyyi li naa ci ñëw bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama treizième combat. ñaata victoire bi muy quatorze. naa bëree bi muy victoire nga am. naa dix victoire. dix victoire bi foo koy boole. bii moom mooy onzième victoire bi. si kàttanu yàlla suñu borom moom dafa ne américain la. kaana la man taalibe laa ndongo daara laa mooy yelwaan aw ma maa soxla ba yaaku. sa dégg nga kooku de soxla na ko ko jox moom. waaw te moom mii bëgguma mu jox ma. déet tey nga bàyyi mu jox la nga am. li ma war a jël si moom par force ma koy jël soxla ma ko sarax. ba ndongo da koy waaye man ba ma dalee bëre ba tey bi mooy sama neuvième combat bi mooy sama dixième combat. ñaari victoire yow. am naa sept victoire am benn défaite am benn machinil góor fit moo ma daan bu Grand Yoff mbooloo mbër mus daanatuma te mbër bàyyi na maa daan man. ndax daa am lu ma bëgg kii day ñëw foqati nga ne waaye na laa daan. kii dafa am treize combats di bëreeg borom neuf combats yi kon kii man du ma ñaa ñaa man ñaata grand combat laa bëre loolu amul si làmb li ngay wax noonu amul si làmb. sànq ba léegi yaa ngi ratatati loolu xam nga làmb la moo fi am yow yaa ma mag fop loolu day dara. mag boobu yow yëpp man xale laa. bëri nga grand combat bi ngay bëri man damaa bëri grand combat ngay bëri man kon man am na lu ma def si làmb si yow boo defutoon si làmb dara lu ma bëri yow daa naan nga benn song laa lay song te yow benn song laa lay song waaw may ma ñëw ma ñëw lan moo tax lay song daan la Mamor barki Sëriñ Bamba Mamor déglu ma taalibe bi nga doon ñoo la ko gën doon ñun surtout Cheikh Modou Ba lañ direct suñu maam Serigne Touba. maa leen boole ni signature di wala nekk si. par rapport ak waxul làmb ñu génne si yooyu noonu. waaw kon yaa a génne si ndax man Fass Mbawu bu ma sax xam nañu Kaanala kon yëfu Kaanala dund. waaw Fass Mbawu nee nañu amoo yar amoo taalibe. sëñ bi maa lay wan nag ku amul yar nan lañ koy def waaw ñoo wax loolu man waa Fass Mbawu su ma daanee sama combat bu mujj barke Serigne Fallou li fa génn musul population boobu musul génn Fass Mbawu. amoo supporter. billaahi wallaahi wa loolu moo ma gën a dugalaat si yow ma jël la. Mamor wuyu ma fii confirmer loolu. Mamor di leen bégee bu baax di leen wax seen doom seen rak seen xarit moo ngi nii. kii barke Sëriñ Bamba dama koy duma daan ko. day ratatati rek. waaw waaw man laa doomu géwal laa père Zora di sama papa. ma nekk géwal si ndey géwal si baay. billaahi wallaahi su ma waxul damay tooñ man su ma waxul du ma am. mais lan moo tax nga jël avance su Cheikh Super Jamono daaw waroon na bëre yàlla dogal mu am ndog-ndog. ñu ñëwaat yàlla dogal na mu daanu la moo tax nga jógee ci fa nangu koo jël. kii lu tax ma jël ko mooy kii Cheikh jaan ñaa lañ ma waroon jox. ak wala laay gote combat lañ ma doon doxal mais kii xamal tax ma jël ko dafa bëri wax ba pare du mbër man gisuma si moom ji koy mbër ma xam dafa neex a daan kii barki sëriñ baam day ñëw teg baane si biir sultaan gi ne day taxaw man ñooñu laa mën a bëreel booy benn song laa leen song laa mu jeex te man ba ma dalee bëre ba tey musuma suma mbër song ma du benn song boobu nga song jeex moo tax nga yaakaar kenn noonu la mel booy man dañ maa songagul te moom damaa bëgg mu ñëw kii wax na damaa bëgg a xaar ko nee man a wax loolu moom man dàkkal laa nee na man damaa neex daan a daan ah. te yow damaa bëgg nga ñëw man bii baa damay taxaw xaar la ndax yow yaa yow boo muy muy nga taxaw muy nga jàkk arbitre bu arbitre bu sifflé yow dama lay wane ne yar woo mais xool ko ma sa kaw dara déggoo ma ne man ñi may seetaan laay xool li <laughs> nga xamante ne dañ ma bëgg a xool xàmmee ma bëgg ma gis kon bu boo dematee sa koñ bu ma lijjanteeti ngay dem ay marché di ma lijjanti da lay lijjanti ma lijjanti naan ma ay carte mémoire ngay jaay non loolu waxuma ma ne non ko loolu waxoo ma léegi ay carte mémoire ngay jaay waaye ban maa lijjanti loolu ah sa gaa yi alal sax <laughs> yow yow yow la si carte mémoire yow day tànk jir dama lay jàpp duma la daan la munoo ko danga see tuuti yow li nga foog da ngaa réeree mbir nee naa la faux type lañ la jox Cheikh Super jamono bi nga gis ak bii ute na état ma xamal la leen de fekkee da nga jàpp ne nooy neex ngay bëreel moo bëgg nga rey sa bopp si entraînement bu baax xam naa ne da ngay entraîné pire déedéet léegi xam naa ne da ngay liggéey pire da mais bu yeboo nga gën a Ousseynou ak Assane yéen laay wax si combat bi ngeen jàpp kii liggéey ko mm, comprendre man du ma entraîné comprendre nga leen moom liggéey leen kii kii boo leen ko liggéeyal ponkal la de man dama entraîné dem leen ngeen audit sëriñ yi dëkk bu mu lu mu laaj def ko. lamb sëriñ Bamba lu mu la jaral ak jaral na ma lu ko raw. maa la gën a soxla combat bi teg jeexal la si man boo jàppee ne dama lay may virgule du ma la ko may. na gréés bi bëri loolu lépp gënaaw yow maa la gën a la gën a dëgër moom. day na daan. kii gëj la ah, gëj a daan yow man man 2006 laa gëj a daan 2006 laa gëj a daan bu daan maa ñëw sans virgule combat bi amul. mu mm. ñëwaat làmb ji passé xam nga ne bëre amu fa. mu war a bëre keneen waaw mais dinaa ñëw dinaa ñëw dinaa ñëw ci loolu dinaa ñëw ci loolu Mamor déglu Mamor eh. déglu non boobu boobu boobu xabtal bi moo ëppoon rek. man ah, xabtal amul ay xabtal làmb affaire jàmbaar si géew bi nga naan xabtal. yow yow yow yëpp maa la gën a nekk jàmbaar. yow barki yàlla doo jàmbaar yow combat yi ma bëre bëre ma mujjee bëre mënoo see daan kenn mënoo daan pël bu daaru yow yow xaw ma. benn voyage daaw la kooku xaw ma kooku da laa daan ba nga def kaat abi. Ah, voilà ba nga def kaat abi. yow kooku entraîné na ko bële nga bëre moom ba temps bi di waaj a jeex. ah ba bilaay walaay booy maa leen man. pour bu daal nga bëre ba temps bi di waaj a jeex te da laa daan nga ñëw jël tànk dëpp la tourné la ngay nekk doon. di nga bëre daanu ma da ngay yooru ñoom di nga dinaa loo duma ba pare doo lay daan. barki leeru alxuraan boo jàppee ne combat bi day yomb yaa ngi nax sa bopp. man xam naa ne da nga bëri wax waaw di nga daan si wax bi nag de di nga daan si wax ji mais barki <laughs> Seydina ma na la leen géew ba moom bu fa duggee amul manjaay amul sama papa amul boy say deux ñi lay informé dañoo juum yow sa boobu yow yow yow xalaatu ragal xalaatu ragal ay ñoo ñoo lay informé kay wax nga ko fii yow da ngay dugal ñooñu rek yow da dugal ñooñu yaa ngi nii di dugal manjaay manjaay ban manjaay sama doomu ndey la ko sama doom la sa sa doom sama doom duma laajte yooyu man xam sama élément papa la déggoo lu ma la sa papa yow amoo ñaanam da laa tere làmb waaw jërëjëf. ne la kaay toog bu ci dugal man am na loo boo ci dugg du respect quoi. sëñ bi dimbali ba nga am ay respect. sa papa dalaa tere lamb amoo taalibe sa papa dalaa tere lamb amoo ñaan waajur. man maa la gën a réew. réew réew yow jege woo loolu. barki leeru alxuraan sëñ bi waaw yow yow suba ba léegi yaa ngi am tapet ma kon am na looy xalaat. si suba ba léegi yaa ngi am ay tapet tapet tapet am na looy xalaat. yow na Sëriñ Tuuba waxuma la ba tey tapet nga yow waxuma la ba léegi tapet nga. walaay walaay taalaay booy mënu ma daan aywa da nga joo da nga. toog la toog la ñu yegg da ngaa yàkkamti làmb ji. ñu ngir yàlla war a suul nga ibil làmb ji. bu yàkkamti dañuy jox date léegi. day gën a métti si yow. billaahi walaay bu tawee bu dee day gën a métti si yow lan moo tax ñu proposal ko nga jël ko. parce que kii dañ ma dañ maa xool Petit Niang xoolal ma Boy Dakar ay cinq adversaires lañ ma si cité ku ñu dem seeti ñi naan ay déwén laay bëri ñi naan ay fii la xari jaar fii la bëyi jaar ma dem ba xam ne moo fi sës mhm. te sama papa prési da ngay déglu nit da ngay dal sama papa prési su may wax du ma déglu moo tax sama papa prési déglu sama papa prési donte mbër mbër kaamil la ndaanaan la dafa bëre ba si guddi gi mu woowoon ma ñuy waxtaan ma ak moom mu ne ma jàppal ne ñii nii di nga bëre ak ñoom mu wax ba tudd turam mhm. kar macha allah ndaanaan la waaw dalal rek ndaanaan la kon bu nekk doon ndaanaan prési du tudd mhm. ma ne ko dëgg la far la ñu dem ba utal ma ay ku ñu woo ma tàppet nga du da nga yow ku sa baaxu morom wàññi sa mbaax dara xoolal ma yow ndaanaan nga da nga mën a bëre boo feccee mu neex boo bëree mu ah, neex ndaanaan nga yaa may dégg mais dalal rek soo dalee rek dinañ déggoo ma dem ba xam ne kat maa ngi moom làmb la hmm. ma ne ñoom ñoom jamekee nañ ko xooli garaaw ñu xooli ko mu laaj leen lu seer waaw mu laaj leen lu seer ñu fay ma li ñu may fay ba pare ma xam ne lii mooy dox seen diggante cent mille franc may leen dagg leen sama xaalis cent mille ngeen tegal ko ko. yaa dagg sa xaalis cent mille. barki Seydina Mohamed bu la neexee nga woo Mor bu parcelle wala Xaadim ànd Seck. billaahi wallaahi taalaahi. loolu lépp mën na nekk déglu ma. maam loolu lépp xam nga loolu mën na nekk xam ah. loolu mën na nekk. landing mi avance bu may jëli maa moom ñooy ànd barki Serigne Fallou bi may bëreek bëreeg lengs lengs moo dolli xaalisam pour ñu bëre ndax man sama combat laa yombalul ndax xam naa li ma siy daj. non du yombal daj daj nañ lu ko raw. mais am na lamb moo toll foo xam ne tey jii man damaa amal samay supporter bor. waaw déglu ma comprendre nga may yaa wax nga may ma wax pare may ma ah, wax ngir yàlla rek may ma wax ñu teg ko si tempo. xam nga tas mas bi mu gaaw ndax man ndékkeegu ma dama war a dem ndékki ji. añ kay ba rek lengs ah. lengs moo dolli xaalisam ngir yàkkamtee bëreeg man ndax xam nga da ngay jàpp ne kii maa loolu moo la dalaat. non non barki Ba. man na yow nooy neexal man kon man. yow Baye Fall yow yow proposé ay lasta ndeer ay mbër yoo xam dañoo yomb man ne du ma bëree ñooñu. dëgg la Cheikh Tidiane Niang mi ngay waxal kooku dama koy maa ngi moom ñooy bokk lal bu ñuy fanaan. dama koy munoo daan. yow yow yow Baye daan ñooñu. moo tax yow da nga da nga mbër man ay laay gote laa doon laaj. ba nga tàllalee micro ñooñu laa lay laaj laajuma ñii. laay gote mi ngay wax noonu top 5 mi koy daan top ñoo bëgg a bëreeg man ñii ñoo bëgg a bëreeg man man ñii bëgguma bëreeg ñoom man si kanam laay xool. kii li muy wax nii bu toogee naan nii yow ak moom la. xamul tax maa moom la. xamul tax maa moom la. Cheikh jamono ngay wax. xamul tax maa ngi moom la. Hmm. barke sëñ Fallou nag jàmbaar la. combat am day met te day xeex te day bëre te man ku ma xam xam ma ci keppaaru Mbaye Gueye Tigre de Fass Fass Mbao yaakaar ma am fu ma séntu fu sori dama fa war a yóbbu sama bopp. mais li ma ci jaaxal moom nee na day ñëw foqati li nga yor. non non man du ma man man li ma yor kenn du ko nangu. par force dama koy nangu ba mu doyal ma tagg bee laal vol dugg. <laughs> barke Serigne Ba yow simb gay rek ngay wax. non non man simb gay si man nag dama see laa bëgg a si lamb laa bëgg a tukkee eh dama lay wax wuy ma xool ma fii xool ma wuy ma man ngay bëreel xool ma. man sama bëñ yëpp ay or laa ko bëgg a def man dund ma affaire lamb làmb boo xamante ne ni deux ans trois mois lañ si bëre. nga war a lekk war a naan war a fay a yëg yaa ngi jaay yàpp. non bokkul la man sama débiteur yi maa ngi job di liggéey di am xaalis hmm, mais lamb bu may bëre sama xaalis may liggéey dangay laaj promoteur yi laaj jinee ay billets di ko may samay supporter ay un million cinq cent laaj jinee ay billets di ko may samay ma rek moo gën mooy musuma may juróomu Mali waaw liggéey lamb sax moo gën MMA la ko waroon def man duma la dumay doy waar barki Serigne Bamba formation garde rapproché di nuyu sama sama sama sama sama ñi ma defal ma formation moo tax instant yi munoo wax solo normal barke Serigne Fallou su ma naree tiit yàlla noonu waaye su ma naroon tiit du ma ñëw fii nii ah. billaay walaay taala di nuyu gars yi da ngaa yaakaar woon xam <laughs> Bamba <laughs> Sepp Bamba barke yàlla commencé gu ma entraîné billaahi wallaahi wa taalaahi commencé gu ma entraîné ay 15 jours laa lay entraîné mbër defal nànk man lu wow laa lay entraîné boo ñëwee ma duma la daan la. billaahi nga xam ne. incha allah li entraîné baaxul amoo course. dama lay duma duma la duma yi métti. dong la say loxo dafa gàtt mënoo maa duma. mbër mbër bul teg bi tegal bi. boo bëgg ma tegal la yow. boo teg ma boo teg ma jël ko. boo bëgg moom laa lay tegal su nekkee kii du ma ko song daan ko lu ma sama carrière làmb yàlla ma ko am. man est-ce que du wax mbër. Ah, bu arbitre ne prix ma duma la daan la. merci lii ci yow. Baye Fall ma xaar mbër. lii laa ci yow. man li ma moom laay dem jëli. yàlla ma bu jour da nga ju may daan nga amul. kan yow yow tapé nga yow yow ñi may biral contact. kuy bëre ay Eumeu Sène Junior ay Pambaay. ñëpp Pambaay ak ñooñu ñëpp ay champion la dañoo def seen preuve. waaw ah. ñëw def sa preuve ñooñu nga may laaj man maa ngi def preuve. gën nga daan. bay baal gën nga daan yow tegle man dama tegle 5 ma nga tegle 7 victoire ah, moom nga tegle laa tegle. macha allah. Ah, mais ndaanaan nekk doon ndaanaan du ma bëreeg yow car macha allah ndaanaan nga. bu baax yow bul tànnal bi nga tànnal kii adversaire bi. yow yow ngay buru bara. wóor na Serigne Touba am yow buru bara nga. moo tax ñu tànnal la nii. yow da nga dof xamoo sax. laajal Poul bu Daaru. Eh, wala nga laaj eh. Boyzil wala nga laaj Lengs. Eh, ay Boyzil yi ngay wax noonu Boyzil dama kaa daan wuma ay Boyzil. Poul bu Daaru naa naan la kon yow. yaa may dégg dalaa daan sax ngay nekk di simu nii. dalaa daan yow nga bëree Poul bu Daaru ñeme woo ko. arbitre ne leen boole ñeme woo kenn yow sax ñeme wu ma la. mais mais man mais man keroog. yow dee leen jàpp lool rek. maman keroog dama laa gis nga jël combat bi def ko estat yi di ci wax ay wax la 14 bi lu waroon loolu. c'est que la 14 bi ndeysaan kii dama ko doon daan xamul dama koy daan. kii parewul. kii li mu sol nii nga xam ne parewul. yéen bu mu sol nii. solol kiwisaar. génnal si Touba Mbacke waaye man ne eh, sëñ bi du ma ñëw fii du ma dof. man dof laa man xoolal. man waaw déglu ma ma expliqué la rek si bu xool maa loolu. man du ma dof man damay ñaan yàlla am soxna am ay doom ñu may sama image rafet. ay Baye Fall làmb ja. ngembul li nag moo tax ñu bëgg a teral suñu yaay moo tax ñuy def loolu. man maa la a bëgg a teral sama yaay man loolu moo dugal si làmb. man leen dugal moo leen dugal si làmb ay doxaan ay am ay gel yéen loolu moo leen dugal si làmb wër na yàlla man teral sama yaay toj suñu kër tabax ko moo ma dugal si làmb baax rek barke alxuraanu karim koy mbër du dof mbër du dof yow da nga dof rek yaa d'accord doxaan gi doxaan sëñ bi man aw ma gel man aw ma ku nekk sama gel bàyyi ma ku nekk sama gel man bàyyi ma man aw ma gel moo amul gel yaa ngi indi di tóor looloo gën a bon ma baax looloo gën a bon indi di tóor di naxaate yow da ngay naxaate am fu ma bëgg a yegg am fu ma bëgg a yegg man daa am lu may dund. barke sëriñ Bamba dara lu dundul yow. non non maanaam dunduma lu métti de man suñu kër ñoo ngi lekk ba suur ñoo ngi naan ba maan am lu ma bëgg man. loo xamante ne man mais mais man suñu kër lekk que lamb ji coow li ma sonn damaa soxla. Cheikh Cheikh waxu lamb waxu mbër rek ngay wax ah, na am xeex sa diggante yow ak moom. kii parce que ay bu bëggee bu ko bëggee day am bu ko bëggul day am. kii man ak moom loolu dama ko liggéey ba pare day xeex day bëre déggoo ma waxuma moom pour ay naxanteeg yooyu noonu déedéet li ma koy wax nii bu arbitre sifflé moo xam day yóngu. yow ngay théâtre de. yow man ngay bëreeg man ba xam di ma da ngay xeex. ma bëreel ba mais mais ma ma déglu dama lay dóor. dañ lay door ngay sëgg jàpp la daan la. dañ lay dóor ngay sëgg nekk nga may yeb. principal da laa tànnal adversaire ne la ñii laa bëgg nga bëreel dem dox nga yëkkati sa xaalis dolli ma pour ma bëre parce que Serigne Bamba bu arbitre ñoom ñëpp ñu génn si. Ah, mais nga ne xaalis nga ma jëlee xaalis moo tax nga jël ma loolu nga wax yow yaa xaalis moo tax nga jël ma bi génne barki sëriñ mbaam de dawal ma doon jël un million yow yow sëñ yem yow noonu ay xañu la rek bilaay nekk sama ginnaaw yow may ñu ay Brescia yi nekk la nekk sama turandoo super jamono père Modou Fall Ndiaye moo ëpp xaalis barki Seydina Mouhamad ñëwal Modou Fall Ndiaye boobu nga wax sama baay ko ëpp xaalis te waxu ma ko sa yorul père Modou Fall Ndiaye moo ëpp sa baay xaalis taalibe yow amoo respect da nga réew quoi yow yaa ne sa baay moo ëpp xaalis ma ne sa ah. baay yorul parce que di tagg sama maamam naanaan la <laughs> ah kon yow yow kon yow yow yow vrai hypocrite nga nag yow. waaw ah, rek hypocrite nga yàlla loolu la gën a bëri. Père Modou Fall Ndiaye borom Brescia Moussey borom Brescia. Bébé Fall borom Brescia. ñooñu ñoo nekk sama ginnaaw di ma jàppale Omar Ndour président ay ses Fass. man maay jàppale sama bopp. wuy ma man damaa am ginnaaw. man maay jàppale sama bopp te kuy jàppale boppam la yàlla bëgg ñëw taxaw. loolu doo tiit doo ragal Vémance grand Zaldir. <laughs> bàyyi man ñi may jàppale si làmb wóor na Serigne Touba ñoo sa sa ñi ngay wax ñi ñëpp xaalis waaw waaw man kenn jàppale wu ma man may jàppale sama bopp su benn jamono kese moo may jàppale si làmb ak sama benn boy Fabi Kaana ah, nekk si gàlle bi caan day daw boo bëgg a dem laandi nga ngi man sama dara mettiwul billaahi combat yi may bëri sax metti wuy ma fil man kay dafa ma jaaxal ah, wuy ma fi làmb toll fi làmb toll fi naka nga gisee làmb bëre làmb fu mu toll mooy ñu bàyyi Gris Bordeaux mu nekk ak sagoom di nga nit Gris Bordeaux oto bu 60 millions lay dawal koroog bi ñuy denc papa Mbaye Gueye tuuba oto bu Gris Bordeaux waajee booy nii di wax fii ñoom mobile ak ñoom. waaye gëmal sa bopp ngay wax li may wax ne dafa am solo. may ko mu ñëw mu ñëw li mu bëgg a def day wàccee grade waaw déglu ma rek yàlla moo koy def cent personnes mën nañ ànd daa kenn koo xam ne moo leen di jiite yàlla dafa dogal Gris Bordeaux moo jiite yëpp dañ ko jox cër warmaal ko ay onde la fu ñooñu xam nga li ñuy wax Gris Bordeaux ñun dañ koy toog di ko déglu mu métti ñu bu génnee affaire maanaam giriyee ak affaire yëngal nii on la fu amul respe booy Kona amul respect Agogo moom waxuma ay waxam ndax mënatul daan kenn na nekk genre président jeune leader ak yooyu mais mobile war na Serigne Fallou Mbacké yow yaa waroon wax ak booy ngeen jàpp délégation mat deux cent personnes dem si kër Gris Bordeaux ne ko jébal nañ la suñ bopp loolu nit boo ko defee rek. boo Gris boo ñëwee rek jox ko li nga li nga lim moom rek moom dina téye lépp loo xamante ne Sénégal Gris Bordeaux xam lan la wax daa bëgg mbër boo xamante ne mbër bu ndaw saa yoo bëree ñu dagg sa xaalis dencal la ko fenn heure bu am kër jotee nga am kër. Mhm. ñu la koy dagg par nanga barki Seydina Muhammad man groupe boobu boobu noonu noonu lu tax ma bokk loolu la man dama bëgg a yaay moom moo koy wax kër rek laa ko bokk naa. mu ne mbër warul bëre ba bàyyi bëre te du am kër mbër warul bëre ba feebar ñu koy ketal. du yoon kon assurance lay dagg ak affaire yooyu noonu dañ la si war a compal par ndànk saa yoo amee combat bu na la fayee 3 millions ñu jël benn 150 mille wala 200 mille am fu ñu la ko dencal. jox la kër commencé la kaa jox nga dëkk ngay am combat ñu la koy dagg par ndànk ndànk kon loolu intérêt làmb la. Hmm. ndax mbër na fi ba bàyyi bëri amul kër gu mu dëkk mbër feebar na fi ñëpp génn di ko ketal loolu du yoon waaye nañ jox Gris Bordeaux ndax ñun dañoo bëgg a def ay noobul barki Serigne Touba danaan naan conteneur ngaaka benn nante ma ko gënal mais loolu dëgg la ñoom konaa yi ay ngaaka lañ. gëj na bëre agogo gëj na bëre dañ koy daan rek kii mobile moom dëgg neexul waaw day xaar làmb meewul si moom Onde le Fou gëj na bëre ñooñu man barke Serigne Fall soxlaawuma leen pour bëre ak ñoom amuñu cër si làmb amuñu coow topp grand Gris Bordeaux di ko yàq lu mel ni xamee te loolu yoon Gris kilifa la kër gu muy kër gu mu dëkk moo géej gi de de ma du cinq mètres barke Serigne Fall li may wax nii intérêt mbër yëpp la Gris Bordeaux na ko làmb jox cër kooku dafa tedd si làmb ñoom teddaguñ noo gisee làmb fi mu toll nii làmb ji tëj na deux ans trois mois quatre mois ba cinq la ci làmb jot ba ci deux ans naka nga gisee taxawaayu làmb fi mu toll nii. waaw parce que xam nga la moo tax xam nga kii dafa wax na wax bu am solo dëgg la. Hmm. Gris Bordeaux mag bu jiitee da koy jox cër dëgg la. Hmm. mais mag bu jiitoo bu demee bay gisantee ka ko fa teg bu génnee day joxe résultat. parce mm. que dégg nga ma. keroog fii. combat ñoom maar la bi mu yàqoo. promoteur mm. yi ñoom ñëpp ku si nekk aalu. Mm. Abdou Fall nga seen ko mu toll fële ne xaw ma kan mais man sama làmb day am. ñu woo leen suru ko jox leen ñu génn noppi kenn waxul. parce que dégg ma. maa ngi lay dégg Bécaye Mbaye sax def na si sorti ne ah ñii di gars yi dañu doon aalu mais ñu woo leen recevoir leen. bañ génnee gisuma kenn waxati. parce que loolu moo yàq lamb léegi. dañoo léegi tey jii ku si mel ni Balla Gaye Guédiawaye laa dëkk muy Balla Gaye 2 muy Modou Lo Eumeu Sène Gris Bordeaux bu ñu tàngalee ñoom président woo jox leen exemple benn 10 million wala 20 millions ñu noppi kon ñun boo yu ndaw yi fu ñu jëm. moo tax ñoom mobile di wax parce que ñi jiite dañoo war a def li nga xamante ne moom mooy bon exemple bu ñuy jàppalee ñoom bu ñu xool seen bopp kese ñoom li ñuy am am nañ ko kii wax na ko mu ngi dawalee oto bu buy jar ñaata millions mu ngi am li muy am man de ñeewuma leen man man ñëw ma benn mbër bu mag ñëw ma ku ci nekk sa alal sama bopp laa gëm Balla Gaye mi ma dëkkal sax respect laa ko jox ak cër mais ñëw ma ko déedéet sama. garab Balla sax Gris Bordeaux moo ko jiite. Balla Gaye si boppam da ngay tal nag. su ba ngay wax da ngay noppi ko waa ngay wax ni dañu yaru. booy bëriwuñ fi dara mënuñu jël lampe simple. nag boo ko tegoon ñooñu ñooñu ñëpp kenn mënu si jël dara ay konaaw ak ay onde la fou ñooñu ñëpp. man ñi muy wax nii mënuñu jël lampe simple dara ba pare topp grand frère bi di ko tegal yaa am kooku amul seen jot pied dans l'eau la dëkk kër gu cher di dawal oto cher yor ñaari jabar <laughs> wur na Serigne Touba Mbacke faalewu leen man maa koy waxal maa koy laa fay pour nga ñëw lan kay Serigne Touba Mbacke xoolal waaye ma fay maa namu dara namu dara ay mbër lu mbër di am barke Serigne Touba Mbacke dem naa dama naa ko am man ñooñu lijjanti ma mobile xanaa xam la def mu neex ma nekk champion mobile benn geste la def mu neex ma mooy tabaski daa jot tabaski père Mbaye Gueye feebar mobile ñëw jënd génne woo ma woo ne ma kër per laa bëgg a dem xaw ma ko ma ne ko xaaral ma ñëw ñu dem bi ñu demee mobile association la àndal benn groupe whatsapp laa mu diaspora xaw ma mobile génnee xaalis bu weex tàll jox ko père mbéy ne ko del dolli si nga jënd xar te loolu mën na jënd cinq xar geste boobu noonu moo tax ma respecté mobile moo tax bëgguma sax wax si moom. kon kon kon demee bay wax si moom respecté naa ko quoi wax wax débordé. Eh. kon yow yow yow yow wéroo xam nga lu tax wéroo. non wéroo ma nga demee ba mobile woo la ne day ñëw super mbay gay. waaw di def geste boobu. waaw boo gisee si mobile lu la metti. waaw da nga war a jël sa yow góor yàlla nga mobile. góor yàlla la déglu ma déglu ma. eh ngay waxal si média wax. déglu laa la wax da ngay toog si média tontu leen. mais doo ko woo téléphone danaa la mbër li nga defee toog média daa toog si média wax lu ko neex da ngay toog eh, bopp laa la wax man gëm sa bopp. aussi combat bi moo gën ngay wax. combat bi loolu après la corona bi moo fi nekk mbër yow maa yow barke sëñ Fallou Mbacké doo am dara. Ah, baax na corona moo fi nekk waat yi ngay waat nii moom yow tàmbaleeguma si yow. amaguma sax sa jot. boo ah, bëggee sa jot nag man bu ma jëlee sa combat laa amaguma sa jot. ba ma jëlee wala ba ma jëlee sa avance loolu man sama waa seen waa kër yëpp ay tiit. teg ko sama loxo yaay laa xoolal am sa lekkee seen waa kër yëppay téye. kan yow pour yow mii. Touba président de moo gën a xam nu mu demee Cheikh Cheikh naka nga naa ñëwee. parce que deux ans ngi nii bii ñëw nga ba ci làmb ji. gaañu mujjee ñibbi. nga ñëwaat dafa nànk rek dafa nànk nga ñëw gaañu bii nga ñëwaat. gaanaat la nga ñëwaat sa troisième combat naka nga naa ñëwee sa diggante yaak Mame Mor. incha allah bu neexee yàlla suñu borom na ma doon def di daan dañ bàyyi affaire yi ñuy naan. si kàttanu borom yow da bëri wax kan moo naan. waaye yow mbala ku naan xool jugal jugal yow jugal door sa biir lii lii lii biir xool oh, wax. waaye ma mën a mën a fu teeku simil yow. simil yow simil. ak i Seydina Mohamed simil. bu simil bu simil bu simil yow simil la man man seen maa laa sol bu nii seen maa laa sol lii lan la lii lan la ajal yow. ajal sa yow sa kii. waaw déedéet waaw toog leen. géejawaay laa dëkk nga may jéem a xoy naan ma. géejawaay géejawaay benn mbër la am. géejawaay ku fi dàq bëri Sénégal géejawaay la dëkk muy Balla Gaye. Balla Gaye man dàq ma bëre eh, loolu ma lay xamal Balla Gaye man sax dàq ma bëre ngay wax yi gëmal sa bopp bul wax bul sukkandiku si ay waxu jàpp moo ko wax Balla Gaye moo dàq bëre yow mais yow maa la dàq bëre yow yow fooy jaar eh yow ay pambaay yi la dàq bëre laay yow dama lay may promo yow yow yaa may may promo da ngaa a daan waaw si wax si wax dama xew si jamono yow yaa xew. barki Sëriñ Fall moo tax principal de tànn man waruma la woon jël. principal moo la dugal si li MMA nga ko def MMA. yow nga may dóor MMA eh, nga ko waroon def. principal principal MMA nga waroon def lii ñu si case. Oh. booy ma woon nga du bànni. barki Sëriñ Bamba. Mamor booy barki Serigne Touba munoo si man dërëm. yow Mamor booy man lu góor di fooyee maa la ko dàq. yow foo am góor lenn rek nga ma si dàq kawlal. non man amoo jabar amoo dara lépp lu ñuy def ngay kawlal amoo jabar mais yaa ngi kawlal. non maa la gën a nekk responsable. daa eh, maa la gën a nekk responsable laa ñu def affaire noble. yow dafoo yëfu noble. wuyu leen ma yëfu dof. da ngeen gërëm cinq minutes moo ci des kaa leen toog la toog la ñu yëkkali Cheikh maa la sa bakkanu tapet bi yow ma sol ay dàll man ay cerex laa sol maa boo ma sutee naa la duma dàll la dama tolloon mbagg maa la mën yow bu baax li ay épaule la mu koy liggéey rek épaule si nag lañ nga xam ay xar ak yooyu bii nag waa bii épaule mu mën ñu da ngay osé da ngay nekk yow yow yow yow yow isa benn yow ay comme i seege yow li ba benn li ngay làkk sax mënoo ko fi. waaw ah, Brescia xam nga Père nga. ndax da si li nga nekk. Père Père kii dafa bëri wax. yow yaa bëri wax yow kuy bëree yow faaw nga bëri wax. sama tante Elisia man dama am tante tubaab. Elisia tous nga naan may Elisia. maam Jaara ñu koy wax Lisa man tante sénégalais laa am. nga naan may Lisa maam tante tubaab Lisa maam Jaara. yow tous yow da nga bëri wax. ay Moussé ñooñu ñëpp amul. asumbeer eh, ay asumbeer ak yooyu amul fii. booy man yow doo tus yow xam nga a génne waaye tus nga naa ma message parce yaa ko mayul. <laughs> mbër damay soxore morom mbër. waaye dërëm nga naa ma soxore yow yàlla nga am. waaw mais bàyyi ma woo yow combat bi dama lay duma daan ma woo ñi yow biir géew bi mbër sa dara. nga naan ay ñooñu amu fi. maa yow ñooy bëre waxal si loolu moo gën ngay ay mbër sa. booy barke Serigne Fallou Mbacke yaa ngi may ruube. billahi wallahi yaa ngi may ruube. maa ngi wax rek ngay booy. dërëm. gaa defal naa defal naa defal naa moom du taxaw du taxaw il faut yi ngay def ni amul quoi. yow man ay cere rek nga yaru. yow yaa war a yaru. boo ñu yaroon yaru rek maa la gën a yaru maa la gën a baax maa la gën a bandi. billaahi wallaahi taalaay. waaw may ma wax. mais lu ngay taxaw nii di di yow arbitre buy siffle du ma ko jege nii. yow arbitre buy siffle fee ngay taxaw. barki Seydina Mohamed yow ala kulli daaru ngay def. taxaw ma la fay seet. du ma toj du ma la may sax ngay léemu nangam. yëngal sama yaram rasa yi day yéegaat waa toogal ñu yeggali toogal ñu yeggali. toogal ñu yeggali waaw yàqal da ngay dóor da ngay dóor. non non ay dóor la ñun ñun ñëpp ñuy jàppale. man am lu géejewaay ñëpp may dimbali. may ko mu taag may ko ko mu gërëm nga gërëm. Cheikh Atia gërëmal. waaw di la sant yow bu baax a baax a baax. Mm. ana yow grand frère bu baax nga. nuyu tamit xam nga ñi ma fekk fii nii xam ak sa caméraman kii moom man rek la bañ. waaw <laughs> xam nga sa caméraman Baye Fall yi ma fekk fii di nuyu tamit Mamour ñu àndal moom it di ko nuyu xam nga. lii làmb la quoi après maa moom biir géew la. Hmm. waaw lamb kon ni mu def. non lamb sax moo baaxoo coow nag. merci sax moo baaxoo coow mais après biir géew moom la quoi. di nuyu aussi sama boy bi nekk Italie. Papi Kaana. non doo fi nuyu Italie. barke Serigne Touba samay kooku sama boy la doo fi nuyu Italie. waay waay yow Italie kay doo ko. Italie Brescia benn nit la am muy Père Modou. man duuru ma eh man duuru ma de man dóoruma Brescia benn nit boobu la am ma koy wax nga man dóoruma di ma tegal lu bëri doole ki may wax nii xolalee eh. père Modou Fall Ndiaye moom moom si loxoom la ko téye Brescia waaw paa boobu yàlla ko yàlla may bu fan garaawul waaw ngay di nuyu sama boy kaana <laughs> boobu di nuyu sama boy bi kaana papi xam hmm. di nuyu papi bu baax a baax a baax di nuyu yaayam aussi di nuyu kenn si man super jamono Malick Mbaye hmm. aw ma fayam di nuyu yaayam sëy xam nga Malick aw ma fayam daf may jàppale si tous les côtés di ma lijjanti di nuyu tamit sama mag sama xarit Pambaay numéro 2. Pambaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax au passage ndax dafa may jàppale si tous les côtés di ñaanal sama mag sama grand sama papa Sakho Dior 2. waaw man kooku su ma demee ba waaw donte sama mag bi moom ma dugal si làmb de mais su ma demee ba bëgg làmb carrément di siisu si làmb Sakho Dior 2 la maa ngi koy ñaanal. li ko waaw li ko dal nii xam nga. waaw yàlla na ko teggee ko ko xam nga teg ko si am bonne condition. amiin di nuyu tamit soxnaam xadi damay dégg di nuyu pambaay bu baax a baax di nuy aussi sama mag guy gi maa koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko wax combat bi aussi combat am la di nuyuwaat aussi sama papa prési kooku aw ma fayam benn papa laa am prési aw ma fayam moo naan ma bàyyil ma bàyyi moo naan ma defal ma def heure bu ma woo heure mu bu mu munti nekk damay bàyyi li may def dem topp si li nga xamante ne moom la may wax di ñaanal aussi sama Pape Mor Fadam fa mu nekk gënal ko fi mu jugee per Sakho Dior aussi fa mu nekk gënal ko fi mu jugee sama booy bi Lamine maa ngi koy ñaanal Père Mbaye mi nga xam ne dañ ko bokk aussi sànq dama fàtte woon sama papa Père Balla Baye Balla mi nga xam ne tey jii maag doomam ñooy ànd guddeeg ba ci Youssou Baye Balla maa ngi koy ñaanal fa mu nekk gënal ko mu jugee bu baax a baax a baax di nuyu axlu géejawaay képp koo xam ne yaa ngi dimbali Cheikh Super Jamono maa ngi lay nuyu am na ñoo xam ne boo leen limul rek xam nga yaa mais képp ku dëkk géejawaay Cheikh Super Diamone mu ngi lay nuyu di la wax combat bi sa combat la ndax bii gars ñoo ko génnee teg jeexal la waruma ko ñàkk déedéet te du mës a am incha allah di nuyu Ousseynou bu baax a baax a baax Ousseynou maa ngi koy nuyu aw ma fayam Ousseynou maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Ndeye Marie Kër masaar Kër Massar bi muy dem di fa kii. waaw Ndeye Marie maa ngi koy nuyu Kër masaar nuyu mbenn nuyu yaayam xam nga di nuyu aussi sama maam sama nijaay yi ñoom Ahmed Pabis. seeni soxna. du doy nag fay daal xam nga. kii baa ñu bëri de. aw ma seen fay xam nga. di di woo ñoom Modou Faye ñëw di woo Modou Faye mu jàpp si combat bi. Modou Faye maa ngi woo di woo Adama Marème. mu ñëw jàpp si combat bi di woo Youssouba. bépp saraxule bu nekk bépp saraxule bu nekk Sandaga. maa lay woo si combat bi nga. maa ngi lay woo si combat bi nga ñëw jàppale sa rek sa doom. di nuyu Youssoufa Touré laa xam nga di maa ngi koy nuyu bu baax a baax laa lumière du Sénégal dafa may jàppale ay bloc yu bëri la may jinal ay cinq bloc la may jinal oh, Youssoufa Touré laa maa ngi koy nuyu bu baax a a baax nuyu tamit Ana Gomis Ana ah, Gomis maa ngi koy woo si combat bi di ko wax nga jàppale ñun ndax ñun ñu nekk doom ñooy ànd man sox làmb soxlawu ma si xaalis bépp politicien bu nekk géejawaay dama la koy lancer message soxlawu ma xaalis su amee combat ay billets rek laa bëgg samay supporter nañ dem stade rek ma duy ko loolu kese laa soxla di nuyuwaat encore une fois sama yaay bu baax maa ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan. sama yaay maa ngi koy nuyu encore une fois. waaw jërëjëf. yaay maa ngi lay ñaanal yàlla may la gudd fan. li nga xam ne mbébét bi nga xam ne moom laa am. ma defal la incha allah yaa sama maam yàlla leen yàlla may gudd fan ak mbooloom jullit. sa doo ko ñaanal. sëñ bi li ngay def noonu du yoon. sa papa moo tax ñu soxna maam jaara maa ngi koy nuyu. soxna maam jaara maa ngi koy nuyu xam nga waaw. ate ñëwoon santal gërëm waaw di gërëm waa Fass Mbao yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw. yar lañ la wax Fass Mbao nee nañ yar woo. waaw déglul non non da nga doon bàyyi boo mbaam bu la wékkee nga wékkoo da ngay mel ni moom. non da ngay déglul rek. maa la ko ñaan nag. ci kattanu présipaata xam na sa kilifa la. waaw suñu père présipaata ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. xam nga ñuy sant présipaata ndax day dundal làmb quoi moom moo moo délégation bi ñëwoon kër Père Mbaye Gueye indi xaalis tabaski bi moom ak mobile su lañ bokk jàpp nañ ko te dootuñu ko bàyyi pérésipare sa pap yow sa papa la mais ñun tamit suñu papa la ndax xama day développé làmb quoi di gërëm waa Fass Mbao yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di gërëm waa Rayba mafia Rayba ñoom Njaabi ñoom Fallou ñoom Ibrahima Touré Ibrahima Touré soxnaam dafa am leer démb barke Serigne Bamba ñànku dafa war a takk jabar suba ñànku ñuy wax waa Fass Mbao yëpp ñànku man men waaw pièce détachée <laughs> comprendre na ñëpp génn xam ñu dem gàllañ ñàngu ndax képp ku xew la Fass moom day génnee li mu am def ko si kon nañ dem si bisam boobu noonu ñun ñëpp ñu jàppale ko comprendre ndax doomu Fass ñun ay doomu Fass lañ ginnaaw loolu ñuy jaale suñu waa kër Papa Mbaye Gueye bu su mel mu Moustapha Gueye xam nga ak Père mbay xam nga suñu tànta yeeg yi fa dëkk ak yëpp ñu ngi leen di jaale suñu Papa Mbaye Gueye ndax ñun ñëpp ñoo ñàkk comprendre nga di gërëm Père Modou Fall Ndiaye Brescia man kooku mooy sama papa moom laa jébbal sama bopp dina wax père loo deful si man rek du am si man. ay dóor la tukki dem Europe. entraînement dafa diis. il yokk doole yokk masse bi père barke Serigne Touba asu mbenn ñoo lay nuyu bu baax di la wax sa vacances yi Italie yàlla neex si jàmm booy ñëw nga indaale ma téléphone. xam nga ak potu protéine yi xam nga bu ko fàtte asumbeena ah, nga waxal ma ko per Modou Fall Ndiaye boroom Brescia moo sëy tey la war a dellu Brescia moom ñoo passé vacances yëpp barke Serigne Bamba de ànd sali fépp fu muy dugg man lay àndal dafa am si man confiance li ma sol ni yëpp moo ma ko jox di nuyu benn gaynam bu jógee tamit bërgi dem Brescia ndax man waa Brescia ñoo ma bëgg daal loolu yàlla moo koy def <laughs> ñu koy wax Adams maa ngi koy bëggee bu baax di nuyu bébé faa bu baax a baax di nuyu Pape Gueye Pape Gueye moom Fass Mbao amuñu ko quoi Pape Gueye lépp li nga bëgg si politique rek yàlla na ko yàlla defal ndax yaa ngi taxaw jeunesse bi nii yow li nga yoroon yoroo amoo xaalis mais li nga am yaa ngi koy bokk jaamu yàlla yi comprendre nga ñu lay sant bu baax di la gërëm di nuyu Xadi Mbay Masaar borom États-Unis moom bu ma ñëwee États-Unis këram laay dal Xadi Mbay Masaar yaay jibindooy di nuyu grand Zal Ndiir borom Pàkk Lambaay di nuyu Vémas bu baax borom laadum yi Vémas borom saag yi Vémas borom centenaire barki Serigne Touba yow Vémas koo jaayul saag baaxul koo jaayul laadum baaxul. koo jaayul daal baaxul. laaxal jaay sa kër lan nekk di ñaanal papaam yàlla yërëm ko te xaar ko. àjjana laaxal jaay sa kër sëñ bi bëggee sama chauffeur bi tur bi. <laughs> Bamba barki Serigne Touba sama combat moo ñu yóbbu. te xamoo turam yow dóor kat nga. non non loolu day kii gaañ nga waaye. barki yàlla gars yi bu ñuy enregistré numéro si oto sax. ah yow sama lañ si wala eh, eh, oto bi wala R21 wala taxi wala lii. lii nii yàlla di bëggee sama waa Gale xam nga sama mag Amet ñoom Njaga Maas. xam nga foofu nga waroon njëkkee nag. da ngaa juum non ñooñu dañuy xaar. déedéet ndax li bala ngaa laax jaay sa kër. ñooñu booy bëri ñooñu bala ngaa laax jaay si àll ba. ngay àndal day gërëm waaw ba pare nga jaay sa kër sax. non defal nang man sama am suñu kër laa koy yóbbu ñoom xam nañ loolu. lu ma am ñoom laa koy bokkal ñoom xam nañ loolu baax. sama yaay di ko ñaanal jàmm ju bari ak sutura. amiin waay di wax yaay yokkal ñaan ndax yaay kii ponkal la de. moo yokkal ñaan yi wóor na yàlla du. yaay kii da lay nax de man du ma ponkal man yambar laa yaay. yaay xam nga man bu ma am. parce que yàlla si ñëpp sax. sama yaay mooy loolu yaay yoo ko ñaani yow xam nga ne damaa sonn si yow sama yaay laay wax man boo ma ñaanalee rek kii dama koy daan te bul ma sax ñaanal ñaanal ma li gën si man rek xam naa ne kii ndam laay am si moom Fass Mbaw yàlla ñëpp am jàmm bëri am combat yàlla na yàlla may ndam nga yarul combat yàlla may nga yarul di nga boo nekkee fenn di fël déglu ma rek boo nekkee fen di di maanaam garab buy meññ nii am na ñoo xam du leen neex loolu xam loolu fépp la man nag xoolal ñoo ñëpp laa boole di leen wax xoolal yàlla na ñëpp am jàmm. ñoo amiin mais yarul la yar bi gën kaa. ñoom ñëpp bu ma juddoo laa yaru bu ma yaru woon ñoom ñëpp yàlla jàmm 150 mbër ñoo mbër Sénégal. non naanaan nga man maa lay grillé rek. kontaan naa kontaan naa ci yow. maama jamono xew daal. maama wuyul fii sëñ bi. doy na maama kontaan làmb lii la baaxoo làmb coow la baaxoo alaaji ba doon teemax yi. moom lan ñu nii ñooy jiite convoi teemax yi alaaji. Eh, dama fàtte jogo jogo. Touba maa lay woo si combat sa combat la waa Dóoru yëpp. waa Mandala Petit Coulé Doudou Coulé oh, jogo Mandala ak père Modou Coulé mi jaay terrain yi ak Doudou Coulé Mamour Coulé Ousseynou Coulé ñoo ma may terrain jour tabaski barke Serigne Bamba. da nga war a ñëw mu yëgul foofu ñu jàppale la. ah man loolu rek laa bëgg ñoo far quoi ah, loolu rek laa bëgg. billaahi walaay da nga bëgg a terrasse terrain boobu yàlla nekk billaahi walaay taalaay ba mu wooyee ma yóbbu la si père Modou Khoule mu may la terrain man may na ma terrain la amul benn problème su ma la daanee ba pare ma yóbbu ma loolu problème non jarul avant ñuy bëre barke sëñ Bamba boo ñëwee ma yóbbu problème ñoo far père Modou Khoule ñoo ngi lay wax xamal yàlla sa jàmm yàgg amiin waay amiin dara faat jàlloo amiin ak Khoule Khoule yëpp maam yàlla ñëpp am jàmm maam ñoo may signalé sànq léegi temps bi jeex na di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci jàmmaarloo ci wasaare làmb jërë ngeen jëf